Limbat di seen matériel bâtiment ku ne dégg na ko ci réew mi entrepreneur yi ouvrier yi ba ci commerçant yi di entreprise bu yëngu ci lépp lu jëm ci wàllum bâtiment tabax ak njaayum terrain yéen ñi bëgg tabax seeni ñëw leen fii ci Limbat lu ngeen soxla ci ciment ak nu mën a toll ci xeetu ciment yépp am nañu fer béton suuf ak brique ba ci matériel électricité yu garanti te wóor am nañu espace lumière yu dul gis faneen ay lumière yu rafet lool oh xoolal ma lii rek wàllum peinture ñoo ci teg loxo xeetu peinture bu ngeen dégg ci àdduna bi boo ñëwee fii ci seen baat fekk ko fi ci wàllum plomberie nous vous donnons tous les accessoires pour vous mettre une installation impeccable Simbad seeni carreau de très bonne qualité carreau bu bëgg am na fii ci Simbad ci qualité ak quantité ngir taaral sa kër fii rek la ci Simbad ñoo ngi fii ci Cité Noflaye après Sangalkam ci route de Bambilor téléphone 33 866 47 98 ou 77 201 83 93 wala 77 374 67 98 wala ngeen woote ci 77 056 59 76 Simbat le choix de la qualité. waaw lu rëy laa gis eh, ndaxte peut-être fekkoon da nga ñëw guddi rek fekk sièges yi tegaloo turbine yi tegaloo nga ñëw rek doo xam dëgg-dëgg liggéey bi nu mu toll mais boo ñëwee nga gis leen ci terrain bi plus de cent poteaux lampes euh, plus de quinze mille places assises ci espace bi nga xamante ni dix hectares la euh, chaise yi day fees dix hectares yi fees dell ba nit ñi ne ci biti ak ay écran géant te ñi taxawul liggéey bi ñëpp nekk njabootu sëriñ bi loolu day wane beneen facette rek ci sëriñ bi nu mu toll waaw ci sëriñ bi nu mu toll di dëggal li ma doon wax sànq rek ni école la ni source d'inspiration la boo xamante ni njàngale mu rëy la euh, ci jeunesse suñu réew waaw di seen matériel bâtiment ku ne dégg na ko ci réew mi entrepreneur yi ouvrier yi ba ci commerçant yi di entreprise bu yëngu ci lépp lu jëm ci wàllum batiment tabax ak njaayum terrain yéen ñi bëgg a tabax seeni kër ñëw leen fii ci Simbad lu ngeen soxla ci ciment ak nu mën a toll ci xeetu ciment yépp am na nañu fer béton suuf ak brique ba ci matériel électricité yu garanti te wóor am nañu espace lumière yu dul gis faneen ay lumière yu rafet lool oh xoolal ma lii rek wàllum peinture ñoo ci teg loxo xeetu peinture àdduna bi boo ñëwee fii ci Simbad fekk ko fi ci wàllum plomberie nous vous donnons tous les accessoires pour vous mettre une installation impeccable Simbad seeni carreau de très bonne qualité carreau bu bëgg am na fii ci Simbad ci qualité ak quantité ngir taaral sa kër fii rek la ci Simbad ñoo ngi fii ci cité Noflaye après Sangalkam ci route de Bambilor téléphone 33 866 47 98 ou 77 201 83 93 wala 77